Euh, gis nañ ci jamono li nga xamante ni dafa mel ni euh, tey mën nañu wax ni tey am na oustaz yi nga xam ne xëy na euh, xëy na amaana ñoo ngi jàllale ay message ñu leen di bàyyi xel mais tey su ñu demee ba nga xamante ne par exemple taxaw nañ di gërëm xëy na gërëm moo xam njiitu réew wala lu demee dina mel ñu ci bëri ak niñ koy gisee ñu ci bëri dañ naan ni carrément gërëm amaana mën nañ ko bañ a wax mais bu fekkee ni ñu yëkkati maanaam xëy na ci poñet nga xamante ni maanaam li askan xaalisu askan wi fas yéene rek di la ko jox Euh, loolu du droit nga war koo jël mbir mi nekk loo xamante ni euh, euh, yaa yaa imam mën nañu waxtaan ci côté boobu tey tey mu mel ni position bi nga toogee nii tey tey cadre boobu tey naka nga ko mën a jàngate parce que xaw na compliqué tey boo demee ñu ne la lañ la war a jox war a ko jël am na ñoo xamante réew mi soxla nañ ko sonn ñoom ñoo ko gën a mérité li nga mën a wax mooy nañ gën a jàppale réew mi tey taxawaay boobu nga en tant que oustaz yi nga xamante ni tey amaana ñu ngi dox ngi nekkal société bi mais tamit amaana ni koy waa société bi di gisee dañu gis ne fi ñu teg seen tànk tey bu demee ba jamono toll fii nii lan mooy taxawaay en tant que oustaz en tant que yéen nga xam te yéen ay jàngale. waaw euh, mbir yi daal euh, dañuy wax rek li yonent bi sallallahu alayhi wa waxoon bi nga xamante ni yónnee woon nañ ko ay kado ndax yonent bi da doon récupérer ay kado loolu histoire nettalil nañu ko waaye yonent bi sallallahu alayhi wa yàlla daf ko njëkk a wax ci alxuraan ne ko wala tamuddanna aynayka ilaa maa mataxnaa bihi aswaajan maanaam bul jël sa bët teg ko ci nitu àdduna yi li ñu am bul jël sa bët teg ko ci nitu àdduna yi li ñu am ndax nit gis nga saa boo jëlee sa bët teg ko ci moom li mu am wala li mu lay jox saa bu wax dëgg ñëwee doo ko mën a wax maanaam saa boo ko bëggee wax dëgg doo ko ko wax ah xam-xam nag euh, nit am na ci teraanga bu nekk. mais mais tam bu la bu la bu la jëm mu defalee sëñ baar nga gërëm ko wala sant ko loolu tam euh, xawul compliqué dañ koy bañ wala dañ koy nangu. déet yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam lan lañ wax. ku santul nit doo sant yàlla. waaw ku santul nit doo sant yàlla. kon léegi nan nga ko mën a déggee. Mhm. kon xam nga ne nit il faut ñu sant ko. te man man loolu nekkul suma problème man recevoir cadeau nekkul sama problème ndax yenent bi def na ko sallallahu alayhi wax naa la léegi na la yenent bi recevoir na ay cadeau yu jógee ci ay amir yoo xamante ni ci ay buur laa la ñu waaw jox nañ ko ay cadeau recevoir nañ ko ay kado ba biñ koy biñ koy yónnee cadeau yi sax yónnee nañ ko ba yónnee waale ko benn médecin yenent bi bi mu jëlee kado yëpp jël cadeau yëpp ba pare daal dina ko yow médecin bi jërëjëf yow mën ngaa dellu mën nga dellu ñu ne ko lan moo tax mënoo jël médecin bi pour mu yore la sa wàllu santé mu ne ko noonu ñun du ñu feebar ndax su ñuy lekk balaa ñuy regg dañuy jog balaa ñuy lekk dañuy xiif kon mm-hmm. xam nga ne lekk gu ëpp mooy waral feebar mm-hmm. lekk te xiifoo tamit mooy waral feebar mm-hmm. kon man bon si sama analyse bopp man li nga xamante ni moom laa ci gis mooy yëf yi yeggul fi ñu ko yóbbu non yëf yi mm. fi ñu ko yóbbu yeggu fa benn niveau bi ñu ko aj yeggu fa yeggu fa yeggu fa loo bëgg a wax sëñ Bara yeggu fa niveau bi euh, ku ci nekk moo tax ma ne dina xaw a compliqué trop parce que sew sew la mais comme ni ko nit ñi di waxee xam nga nit bu fekkee ne kilifa daf la jox dara kilifa daf la jox dara man nga taxaw nga sant ko léegi loolu lan moo ci lan moo ci indi wax yu bëri yi man loolu moo ma jaaxal nit ki kilifa recevoir na la jox na la tiraanga taxawal publiquement nga wax ne jox na ma nangam loolu dara nekku ci loolu gisuma ci loolu amul lu ci lu ci lislaam man de gisuma ci lenn loo xamante ni ci ci lislaam am na lu ci lislaam di aayal parce que ñu ci bëri dañuy wax ni ba ñu demee tam war nañ ko fàttali mbiru askan wi sonn gi nga xamante wala jafe-jafe askan wi tam loolu moom moo gën a nekk priorité xam nga loolu ay détails la d'accord ñaari kilifa yu nekk ci néeg wala kilifa bu recevoir nit xamoo lan la wax ak moom d'accord ok man yooyu daanaka mhm. gars yi ñoo ci nekk di wax rek mais yooyu man pour man jarul nekk loo xamante ni débat bu jar muy sori la sax waaw jarul jara débat buy sori ndax Missa Sène kilifa invité na ko recevoir na ko jox na ko dara moo xam nag lañ wax ñoom ñaar loolu seen diggante ak yàlla la ndax alxuraan daf ne wala tajassasu mhm. bu leen rëcc bu leen bu leen alsaan secret wu ñoom lan lañ wax lan la ko wax ba mu jox ko kooku moom moom la concerné d'accord ci l'islam ñun maandu gi ñu maandu gi ñu yàlla jàngal mooy ñoom ñaar lañ wax moo xam lan la ko wax ba mu jox kooku ñoom ñaar la concerné mais moom am na droit ñu jox ko mu wëllër bi ko sant ki ko jox kooku moom dara nekku ci donte ne nag ki nga xamante ni mooy kilifa bi ñëpp la fi nekkal mm-hmm. la fi nekkal mais nag nit ñoo gis nag wax dëgg yàlla mbooloo muñ dajee am na ñoo xamante ni seen wërsëg seen wërsëg yi ñoo ëppante waaw ñoo ëppante ok loolu laa ko jàppee daal a jërëjëf suñu baari si ngeen borom baraxut eh, xam naa ni jot bi bariwul Ah, ñu di la santaat tam xam nañ ni ñu ko waxee euh, boobu ba léegi tam euh, da nga tëjoon bunt yi li ko waral mooy weeru saxru ramadan ak mubarak bii nga xamante ak tafsir yi nga xamante saa su ne euh, amoo jot amoo woon sax ay daanaka ay nelaw amoo ko ndax xam nañ ci dara tey boo nekkul ci site bi yaa ngi ci tiktok bi di am ñoo xamante ni ci yenn plateforme yoo xamante yaa ngi baaxe nit ñi alquran léeg-léeg sax yaa ngi dem ci jumaa yi jàkk yi di ki di di di ko yaatal foofu alquran gi sëñ Baara mu mel ni nag jamono gi naka nga fas yéene dox ndax waxtu bi moo ñu dab daanaka macha allah génnaat nañ ci weer wi euh, ndax bëgg nañ xam tamit patient yi nga xamante ni wax dëgg yàlla tëjul nga say bunt bëgg nañu xam tamit euh, liggéey bi nan la war a doxaate ak euh, noo leen xaare incha bi moom incha allah dafay démarrer koor gi rek moo taxoon te loolu moom wax dëgg yàlla ñëpp xamee nañ ñu ko mm-hmm. koor moom wax dëgg yàlla bu ñu fekkee ñu voyagé dañuy ñëw fu mu ñu mën a fekk ci àdduna dañuy ñibbisi mm-hmm. fii lañ koy defee programme koor tamit du ñu recevoir kenn amul kenn ci kaw suuf ku ñuy recevoir déedéet lu jëm ci wàllu liggéey bi déedéet mais après koor gi nag incha allah ci la ñuy delluwaat ci liggéey bi comme niñ ko daan defee rek mooy euh, euh, li ko dagg lënd bi ba jeudi fii la ñuy nekk Dakar weekend bi ñu ngi nekk Mbour noonu lay programmer incha allah yeneen fin du mois yi ci des ci dañuy dem dañuy nekk Saalum kon programme bi noonu la rek comme ni mu naan déroulé noonu la rek lay déroulé amul benn changement waaw amul benn changement ñu bàyyi la nga tàggatoo tamit déwénati rek di la baaluwaat àq bu baax a baax looy tàggatoo mbokku téléspectateurs leen sant bu baax di leen gërëm rek di wax ne Sénégal yi mhm. nañ bàyyi di maanaam focaliser wu ci benn mbir boo xamante ni daf ñuy tardeel mhm, mhm. ñun am nañ leneen lu ñu mën a jëriñ ci lu dul diggante nit ku ñu jox oto ku ñu jox nangam en tout cas lañ ko jox moom moo xam lan la wax bañ jox ko ko kooku moom moo xam kooku moom moo xam diggante moog yàlla la lan la fa wax bañ jox ko ko moom moo xam sant bi tim moo xam gis nga nit ki doomu aadama xamul maanaam li nekk ci xolu doomu aadama la ñu fas la wax ñoom rek ñoo ko xam loolu yàlla ëllëg moo leen koy réglé seen diggante ñoom ñaar mm-hmm. ok ñu bañ di focaliser wu ci yenn yi bon am nañ leneen loo xamante ni mën nañoo jëriñ mm-hmm. mooy lan mooy suqali réew mi lan mooy maanaam nekk li nga xam ne mooy nekk suñu yokkute waaw loolu moo ëpp solo lépp lépp lii ñu nekk fii di wax te yeneen yi ci euh, nit ku nekk kilifa mm-hmm. boo nekkee kilifa moo xam kilifa diine nga moo xam kilifa aada nga mhm. war nga respecter sa bopp respecter sa personnalité respecter sa image mhm. ba am na yenn yoo xamante ni tim man nga ci ñàkk dugg ndax tim alalu àdduna jarul loolu jarul jarul loolu mhm. ndax Souleymane bi ko ndaw si indilee nga baal ma rek Souleymane bi ko ndaw si yónnee kàddu yu bëree bëree bëri bëgg koo ger daf na ko yow da nga may jéem a ger kanaa xamoo ne li ma yàlla jox moo ëpp doole fuuf li yow li ma jox te mooy lan mooy xam-xam man dama jàpp ne borom xam-xam yàlla joxul la lu ëpp dayo xam-xam yàlla joxul la lu ëpp dayoo xam-xam xam-xam mooy lépp waaye nag xam-xam nag moom bu ñu koy waxee maanaam xam-xam bi nga xamante ni mooy xam-xam buy jëriñ mm-hmm. kon daal loolu ci gàttal moom lañ amoon ñu ciy wax di la sant bu baax eh, di la gërëm di gërëm sa caméraman bi mm, di gërëm njaboot géeg yëpp di gërëm képp koo xamante ni mu ngi ñuy seetaan wala képp koo xamante nii rek mu ngi ñuy bégale mu ngi ñuy eh, ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu baax di leen wax ne li si jub euh, ci matuk yàlla la lu ci dëngatim ci matuk man mi doon wax ne xam ne jàmbu xeebu bi la rek li ma bëggoon rek mooy mi yëwoon ñi wax ne in uridu ila al islah mastataatum wa ma tawfiqi ila billah mm-hmm. wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh Uh, waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi santar nañ ko bu baax di sëriñ Baara Sañaan borom barahut tabarkal la mbokk yi comme na ma ko waxee woon uh, at wu jot nga gis ko mu ànd ak jàmm ji info uh, ci tafsir quran tabarkal la muy tafsir boo xam ni ñëpp ko sopp ñëpp ko bëgg tam ci ni ma koy doxalee ci pédagogie bi waaye tamit ci fasaaxa bi tabarkal la ñu di ko santaat di borom xam-xam tam ni mu ko waxee tam durant weeru shahru ramadan al mubarak bi yëpp dafa tëjoon buntam ndax nekk ci tafsir yi waaye incha allah ubbi war na ay buntam bés ni ki tey seen rek di démbalanteeg askan wi seen jafe-jafe moo xam seen wàllum ñaan yàlla ak bu mu mënta doon tabarkàlla da ngeen ciy gis sunu borom may ko ci lool tabarkàlla ci wàllum lasraar euh, mu ci dund ak ni mu ko waxee rek euh, gis ngeen ni jours yi nga xamante wax na leen ko fii lay nekk ci Dakar waaye yi nga xam ne yeneen bés yoo xam ne mu ngi ci diwaanu Mbour euh, tam bi dinañ ko baaxee askan wi ndax saa tam ñu ñu koy laaj bu ko defee képp ko bëgg a jokkoo moom ku jokkoo ak moom rek xam ne tabarkàlla xam-xamu mag ñaa ngi tam ku sopp lasraar la waaye tam ku xam li nga xam ne moo di lasraar la di ci jëflanteeg askan wi waaye waaye à travers national l'international xam nañ ko bu baax a baax a baax euh, lépp lu mu la wax ni rek tabarkàlla da koy dox da doxal xamal ni da doxal waaye lu mu mënu dalee taxaw carrément ne lii moom mënuma ci dara kooku askan wi xamee nañ ko bu baax a baax a kon ñu di ko santaat di ñaan allahu bur bi subhanahu doole guddal fanam euh, doole ko defal tawfiq tey si rek nag yaax defal ko saxat daare ni ci ko ci defal ndam euh, di ziar bu baax a